dégg ñu waxtaan yeneen yoo xam ne ay secret la. pour wax la rek. ba Basirou nekkul benn waay buñ. buñ foree ca mbedd ma andi ko comme Macky Sall ni mu foree candidat am mi rek nag da koy jox Sénégal. entre parenthèse Macky daa for candidat da koo for. Hmm. moo tax xanaa déggoo ma ne ko iPhone Dubaay nga nga yor. mooy iPhone bu bu bon bi daal. Hmm, iPhone Dubaay xam nga lan moo tax ma ne ko iPhone Dubaay. lu tax. mooy Macky par internet la defee commande am. Hmm. waaw dafa gis iPhone yi ci télé bi ci internet bi mu commandé benn ñu ñëw livré ko kon nekkate du vrai bi. fekk Dubaay bi lañ ko livré iPhone Dubaay lañ ko livré. moytul ma lool de. oui livraison moom. wóorul ci Sonko nag daa ba ca boutique ba. tànn ci iPhone yi iPhone bu baax bi moom daal di jënd. kee nag moom dafa jënd iPhone boo xam ne cag-cag bi moo ko indi bu Dubaay xamagu ko nag waaye mi ngi koy tàmbalee xam bu taalee rek day tànk moo tax moom sax mi ngi tàng léegi. moo tax mu koy bañ a nuyoo non dama ne la. est que xam nga ne Amadou Ba ak Macky Sall xamante wuñ. xamante wuñu. waaw loolu de maa ngi koy soog a dégg tey. oui maa la ko wax tey. lu tax wax loolu. xamante wuñu ay xarit. Hmm. foo ko teg bi. du ay xarit duñu ay xarit duñ ay mbokk duñ ay àndandoo duñ ay allié. a ah, te mu nekk candidat. waaw mais li ma la wax ni kenn du ko dindi. est-ce que doon ci leeral. di nga wax ne ah. tey par exemple maire Camara yaayu Anna Diamanka Anna Diamanka mooy deuxième femme Sonko. Mhm. xam nga ni mag dégg nga li wax. bu baax Anna Diamanka mi ñaareelu Sonko. Mhm. yaayam. Mhm. mook Amadou Ba ñoo retraité ndoo maanaam ca euh, impôt et domaine foofu la maire bi doon xëy Sonko di fa xëy maire bi di fa xëy Amadou Ba di fa xëy. ñoom ñett. yaayu aana jamanka moomu Amadou Ba da ko yóbbu Makka avant muy nekk goro Sonko yóbbuwaat ko Makka bi mu nekkee goro Sonko. Hmm? xam nga loolu kon su ma ne woon Amadou Ba ak Sonko xamante wuñ boo ma waxee lii rek dama naa ah, kon nag ñaar ñooñu moom mënuma caa dugg xamante nañ. yoon ñu bokk ab bureau lu ëpp fukki at. man. Euh, ñoom ñaar ñooñu am na kenn ko ma ci nettali jërul may ciy ñëw ne dama daan lal sijaada timis wala gee mu ne timis ak gee ñoo ko daan bokk di julli si daldi carax yi may jàppe hmm, moom lay jël damay dem jàpp ci mu tooy xepp bu ma ñëwee Sonko damay xaar ma ñëw summi mu jël dem jàppi wala moom mu ñëw Sonko jàpp summi dàll yi ci tooyaay bi Amadou Ba dem sol jàpp ñu bokk genn sijaada kenn ki jiite moroom ji ñu julli timis wala ñu julli gee hmm? lu ëpp ay nangami koo seq loolu yenn kon ñaar ñooñu ay xarit lañ hmm? yu yàgg ànd bokk liggéey bokki bureau relation bu mel nii ma wax ci diggante Amadou Ba ak Sonko ci àdduna kenn du la wax relation bu jege loolu ci diggante Amadou Ba ak Macky Sall ak kenn du la ko génneel bañ àndee dem dëkk sàngam wala bañ àndee tukki wala ba ñuy xaritoo jamono ba dëkk bi naqaree lii lañ ko doo ko gis ci àdduna séquñ dara Amadou Ba PS la bokkoon ca jamono yi 96 defe naa élection législative municipale yi amoon parcelle sax bokkoon na ci ñu nekkoon mairie parcelle bi doon ko xëccoo PS daanu 2000 PDS ñëw mu ñëw ànd ak PDS. Mm-hmm. wax nañu ne nag bi PDS di bëgg a daanu Macky nekk candidat dafa ngarale mooy di jàppale Macky waaye nekk ci biir PDS xam naa moo tax ñoom bu ñu ko wóoluwut naan ko yaay financé Sonko yaay financé waa aar xëy na ñoom dañ koo ja dañ koo dund moom moo tax parce que dañoo dañ koo xamoon kon. Mhm. muy def ju mel noonu. Mhm. xëy na xëy na. léegi bi nga xamee ne loolu am na euh, Amadou Ba daadi di APR maanaam PDS daanu. ba 2013 defe naa. bi ñuy jub daal en tout cas législatif 2017. bi ñu koy jub en tout cas ay côté 2014 2015 côté boobu. d'accord la daa di ne moom dafay bëgg ñëw dugg APR man dugg bennoo sax laay wax moom bokkul APR du membre APR. dugg bennoo ci coalition bi en tant que ab euh, kii. membre rek membre ñëw. participer jàppale APR pour ñu mën a gagné élection yi législative yi. loolu moo boole Amadou Ba ak Macky Sall. min xablu amul lenn benn relation bu la nit mën a génneel nag laa wax boo xam ne Amadou Ba ak Macky Sall seq nañ ko kon donc xamu ko man tey bu ma Ousmane Sonko defoon kandidaa mais boo toogee ne Ousmane Sonko ki mu def candidat xam xamu ko wax na dëgg wax nga dëgg. ndax sequ leen relation sequñu sequñu sequñu. kon ñee daal politique moo leen boole. mënoon na sax politique leen boole parce que bu dee politique moo leen boole waru woon a mën a boole parce que Amadou Ba yow mënoo bi ngeen àndee ci politique mosulaa gañeel dara. waaw ah, kooku moom ndax am nay chance. maanaam dañ ko nax moo tax ma wooyee ko ay fan Dubaï. bi ma ko koy tuddee maa nga ah, ca prison ba toog parce que dañ ko nax dañ ca nax Macky Sall totalement xam nga Amadou Ba lan la. lan la moom ay titres journal la. maanaam maanaam Amadou Ba titre journal la ak kuñ defar ci internet bi ba mu nuru dara mais Dubaay la. waaye ci biir dara ci biir moom mook ay mook iPhone buy tàng la. ci biir doo oh, oh, xoo demul gis nga Macky Sall bi muy jël Amadou Ba pour moom maanaam punkal la jël fekk ay titres journal la rek ay yëf la nuñ koy tëggee. waa ku demul noo koy daane. ah wala naxit bala rek lépp ca ku demul mooy. ma ne ku demul nga ne xam nga ne Amadou Ba nga ne demul ndax waa ji moom. non mais yow xam nga loolu. xam nga ne yow Amadou Ba. adduna bii ñun li ñu xam mooy élection bu mu bi gañee ko adduna bii ñu nekk discours moo fi bàyyi ñëpp. Guy Marius Sagna tey bu taxawee bokk ci politique Sénégal cela veut dire que dafa amee discours am. Hmm. Dame Mbodj discours am. Clédor discours am Cheikh Omar Diagne discours am Sonko discours am. ak discours bu ndiroog jëf. discours. Hmm. ci boppam avant tout da ngay mën a wax ak askan wi parce que waxukaay yaa ngi ne gadd ñëpp dañoo toog di déglu. Amadou Ba démb dem na Fuuta. Hmm. Mhm. dañ ko fa doon sonkari si sax di ko yoxu sonko sonk mais ca ndaje ma am na benn baat bu jógee ca ndaje ma fekk la fii ñu ne Amadou Ba nee na moo ko waxut ñooyam te pourtant wax na fa. wax na fa kay barki démb def na tournée dem na Sàkkal dem na Louga dem na fii def na tournée fu ne wax ma ci tournée Amadou Ba yi benn mot boo xam ne da nga naan ca tournée Amadou Ba lañ ko fa waxee. kon daal mënul wax. dafa dul wax Amadou Ba du wax du bind. ah kooku moom. Ah, léegi moom lu amutee am moo tax ma ne la titre journal la dafa am ay journal yoo xam ne bu ñu la ko tiitaralee Macky Sall est-ce que du jël Amadou Ba xam nga loolu boo gisee juróomi journal bind ko ci benn bis da ngay ah lu tax ñëpp naan man amadu Ba laa war a jël mais Amadou Ba li Macky Sall séq ak Boun Abdallah Dionne Macky Sall séq ko ak Amadou Ba. kon ndax loolu xam nga Boun Dionne ak Macky Sall fu ñu ànde fu ñu àndee. Macky Sall nekkoon na ab enseignant ab ab étudiant. Mm-hmm. ca université Cheikh Anta Diop. Mm-hmm. bu di ñëw kër commissaire Dione kër baayu euh, Boun Abdallah Dione di fa añ si. Mm-hmm. ak di fa fréquenté. parce que xam nga ñoom dëkkuñu dakaar Fatick lañ jóge woon dem wàllu jooja fa la jànge ba am ba am ñëw nag dakaar bëriwu fi mm-hmm. woon ay mbokk bëriwu fi xame fréquentation boobu ca jamono yi étudiant ja ca la àndoon ak Boun Abdallah ak rakkam rakkam mi ngi woon assemblée bii rakko Boun Abdallah nekkoon papa yi ab Boun Abdallah ab commissaire la nekkoon ci point 1 euh, foofu la doon fréquenté di fa añee. kon di ànd gu yàgg fa lekke di fa sangoo di defaru en tant que ànd boobu la woon ba makki sàll dem nekk ministre ca deux mille deux mille trois ya laa wax de. Mhm. la jëli bun njoon mu ñëw nekk ci biir cabinet ministère am. Mhm. su demee intérieur day déplacé bun njoon ñu ànd. Mhm. su demee premier ministre bun njoon dafay nekk ba bi mu demee assemblée national sax. jéggal <laughs> jéggal <laughs> jéggal moom euh, <coughs> ba bi ñu demee assemblée nationale buñ njoon Macky Sall da ko yóbbaale assemblée uh-huh. ñu jóge fa ñëw ci opposition ñoom ñaar jóge fa gañee réew mi bi mu gañee dëkk bi ak tey bu nu Abdallah Njoon mi ngi ci biir gouvernement di liggéey nit kooku yow kan moo la gën a rëy ci moom warul hmm? nañ waxante dëgg rek koo xam ne depuis étudiant ak tey jii tàggale ko woo leen foo mës a nekk mi ngi ci sa di la dimbali ci carrière ministre premier ministre yi am Sénégal mooy ñoom Idrissa Seck ñoom. Lamine Loum ñoom. Abdoul mbay ñoom ab Souleymane Ndeena ñëpp ki gën a yàgg ci sees bi mooy Abdou Mbaye mooy mooy Boun Abdallah xam nga loolu. Mhm. moo ëpp lu mu nekk Idrissa Seck premier ministre. Mhm. moo ëpp lu mu nekk Macky Sall premier ministre. moo ko ëppale Mame Madior Boye ëppale ko Mimi moo gën a yàgg ci seesu premier ministre. Mhm. dem na élection législative. Mhm. nekk tête de liste gagné majorité assemblée nationale. Mhm. gagné majorité assemblée nationale. Hmm? dem nañ defe naa. Euh, présidentielle bi yàlla moo nekkoon directoire campagne Macky Sall. Mhm. gagné ko. Mhm. Hmm? kon moo ko gënoon mérité Amadou donc kon kooku dafa dafa am ay jaar-jaar yoo xam ne ba pare moo ëpp xam-xam Amadou Ba aussi. ah Amadou moo ne nee nañ am na xam. non Amadou Ba fonctionnaire haut niveau la. waaw mais Boun Abdallah moo ko raw. moo ko gën a xam état ci moo ko raw bokkuñu. d'accord voilà ñoom lenn lañ doon wax mooy ay daa wérut. waaw yaram bi daa sutante. waaw est-ce que ma médecin moo ko wax. bulletin santé jàmbur kooku kenn du ko utiliser vraiment Boun Abdallah mais nag Boun Abdallah Dionne mooy meilleur candidat boo xam ne moom la Macky Sall waroon a jël. Mhm. doonte man sama yoon nekkul ci ñoom. waaye la tax mu bàyyi fa Boun Abdallah mhm. dem ñëw di jël Amadou vraiment loolu passé à la. waa su am Boun Abdallah Dionne jàllee. Mhm. tey ku mel ne Aly Ngouille Ndiaye. waaw surtout. Aly Ngouille Ndiaye ca deux mille jamono yi deux mille ya da doon liggéey banque nekk cadre Aly Ngouille Ndiaye dafa am xam-xam boo xam ne jàpp naa ne ñu néew ci ñi politique Sénégal ñoo ko am. Hmm. voilà ñaari diplôme yu bokkut la am. defe naa économie ak euh, fàtte naa beneen bi. mais am na ñaari diplôme waaw mais ñaari diplôme. d'accord maanaam boroom xam-xam la daal bu mag. tey maanaam autorité locale la. mooy depuis muy politique Habib Sy mi la doon xëccoon depuis muy commencé di politique ak tey député ak maire Linguère du ko xëccoon nit comprendre mhm. kon donc kooku tamit maanaam am na mérite te Macky Sall moo ko bàyyiloo ab liggéeyam mu ànd ak moom ñuy politique ñu jël réew mi ñu ànd soo demee ba moom mu mu taxaw ne la soo nekkee candidat man damay nekk candidat. Hmm. soo nekkul candidat man damay nekk candidat. dégg hmm. nga xam ne egg na ko ci moom man de jàppale naa la sama ndaw gépp nga politique hmm. am nga am nga première mandat am nga deuxième mandat pare nga da ngay dem wala boog da war a dem soo continuer damay damay damay damay. ma ànd ak yow ba tey damay ànd du ma ànd ak yow parce que man tamit damaa bëgg li nga bëgg soo continuer wutit du ma ànd ak yow xam nga kooku moom mooy li ñuy wax décidé wax na la boppam décidé na hmm? d' accord dafa a ah, ah, ah, Ngouille Ndiaye dafa décidé pour dem mais Macky Sall léegi yow xanaa waroo ko décider rek décidé na yàgg na ci parti bi liñ mën a natte ab politicien mooy gagné gagné li local yi jàll Sénégal ba ñu ànd ak APR ñu ci néew moom mooy ki gagné goxam euh, Linguère ci mairie bi gañewaat ko ci législatif ñëw taxaw nga ne ko demal toog ne ak sa sa dogu ak sa lii jël ki nga xam ne dana man de ah man de moom ah yow yow Amadou Ba loo wax ci réew mi mu ne ah ma daal bu président nee bëgg naa danaa ko bëgg bu dee président nee doo ko bëgg du ko bëgg yow ku bëggoon sa doom ci noonu di nga ko ko may. déedéet. Hmm? ñu ne la nopp nga ji ndaw si nga naan bu sama papa nee nopp naa ko. Hmm. ma nopp ko bu ma sama papa nee bu ko nopp du ko nopp kon yow noboo. dégg nga li ma wax bu baax a ñu jëloon bu nu Abdallah Njoon Amadou Ba du riposte da ciy topp. mais inverse bi moo indi tasaaro. bu jëloon euh, bu ñu jëloon nu mu tuddati Aly Ngouille Ndiaye. Mhm. Amadou Ba dina topp ci ginnaaw Aly Ngouille Ndiaye. bu ñu jëloon bu nu Njoon tamit Amadou Ba ak Aly Ngouille danañ topp bu nu Abdallah Njoon. Mhm. waaw léegi nga bàyyi ko fa dem jël koo xam ne yow. même ci biir parti bi del xool fii man maa la jox exclusivité bi mhm. fii ba janvier di nga gis ñoo xam ne danañ génn d'accord am na ñoo xam ne Macky Sall da leen forcé forcé par force maa la ko wax di nga gisaat ñeneen ñu génn biir AP biir bennoo kon mooy bennoo tas ku mel ne Moustapha Diop Louga àndul ci soit Amadou Ba te du ko politigël yow hmm. doo dégg benn collecte de parrainage bu jógee Louga ah bëggul ak li Moustapha di wax. waaw xam nga daf fond course Covid bi fond bi. Mhm. maanaam euh, kii boobu fi wite woon man sax damaa jàpp ne état bee ko fi hmm. bu dul woon ak fond course Covid 19 boobu fi ab euh, Ablaye Diouf Sarr day nekk candidat. Hmm. mbooleem ñi ñu tudd ci fond course Covid bi yëpp ñu ci gannaaw Amadou Ba. Hmm. Ah oui pour noppi la woon. lan ah, la génnee xam. parce que Moustapha Diop xam nga dañ ko tudd ci foo bi. waaw bëggoon na Moustapha Diop. jël na déclaré woon na candidature jël na fiche parrainage ba jël fiche xanaa loolu moo tax assemblée mu taxaw mu ne kenn mënu koo takkal ci lenn. man daal loolu. <laughs> leeru la. <laughs> mais daal <laughs> li wóor te wér mooy. d'accord moom bëggut. Hmm. Abdoulaye da Diallo bëggut. toog na mais bëggut mariage forcé la. Ah, parce que toog nañ lu yàgg di xaar waaye dañ ko mariage forcé la maam mbay ñang bëggut dañ ko ko forcé la ah, loolu de bari na Seydou Gueye foo ko gis yow depuis ñu tànn Amadou Ba ak tey ni mu daan amee woon dayoo foo gis Seydou Gueye ci wàllu pare na ci coalition lu ci wax déggatuma ko fenn foo gis Mor ñoom na ca Bambey waaw pare nañ ci parce que li Macky Sall def mënuñu ànd ak yow depuis vingt ans nga am xarit boo xam ne fee la nekkoon ñu xeex ak moom ndax sa jëm Mhm. nga dem jëli ko ñëw jëndee ñu ko. kon daa am leen jëndee. ah na leen a